waaw salaamaaleykum mbokk yi comme niñ koy defee rek ñu fii ci dëkk bu tedd bi daar Koso di continuer def ziar yi kon kooku ngeen jàkkaar lool mooy Serigne Mame Thierno Mbacke moom sëriñ maam Mor Koso kooku ngeen jàkkaarloo mooy sëriñ maam Thierno Mbacké moom sëriñ maam Mor Koso bi nga xamante ni moo toog toogaayu sëriñ maam Mor Koso mi nga xamante ni moo njëkk a nekk xalifa sëriñ Mahmoudan 1966 bi sëñ Mahmoudan génnee àdduna jàmbaar ji ko wutu woon di sëriñ maam Mor Koso kooku mooy xalifaam sëriñ maam Thierno Mbacké mbokk taalibe yu wéy di def seen ziar jàmbaar ju tedd nga xamante ni mooy sëriñ maam kooku mooy ab xalifaam sëriñ maam Thierno Mbacke. الذي تخسير له تغير لنا عمرنا سير لنا بدنا وهب لنا رسلا توفيق يا الله ودمرا كل أعداء تدير بنا قبل الوصول لنا يا الله يا الله وكن لنا عاصما من كل مخلقة ونجنا من بلاء يا دهر يا الله وعافة حقة معوسة معن زلزالة سدة والفقر يا الله إخانة قلة مصيلة قلب وفاقة قدس والجوخ يلاكو وفتنة والوباء والقرق ما قرق والبرق ما سرق والكد يلاك عر وبرد ونحب كربة نعم دلالة حرج والحيم يلاك وهامة وهدى يا دالة سلل والمسخ والقصف ثم القصف يلاك وحولة مع جنون حلة مرض ثم جسام waaw ah, baax na mbokk yi kon ba tey niñ koy defee rek ci màggalug daaru Koso dëkk bu tedd dëkkub Serigne Mahmoudan ñu wéy di def ay ziare ah, ñoo ñu jàkkaar lool ñooy njabootuk Mamor Koso kooku mooy Serigne Abdou Khoudous tedd ji Serigne Abdou Khoudous kooku mooy Serigne Cheikhouna Mbacké moom ngeen jàkkaarloo noonu Serigne Cheikhouna Mbacké taalibe yi wër di ziare mu feggoo ko rakkam Serigne Abdou Khoudous mi nga xamante ni. moom la sëriñ Maam Mor duppee sëriñ Abdou suñu borom teewale na koy at yu bëree bëri ñuy wër di def siyaar yi kooku ngeen jàkkaar mooy sëriñ Abdou Khoudous moom sëriñ Maam Mor Kosso bokki taalibe yi wër di def ay siyaar ba léegi. ba léegi rek ñu ngi wër di def siyaar ci njabootuk sëriñ Maam Mor Mbacke kon kooku ngeen jàkkaar lool ba tey mooy sëriñ Cheikhouna Mbacke moom sëriñ Maam Mor Kosso bokki taalibe yi di wër di def siyaar ba léegi. waaw kon ba tey niñ ko waxee rek ñu ngi wër di def ay ziar kooku ngeen jàkkaar lool mooy Serigne Modou Habib moom Serigne Mamor moom la duppee magam waajuram wu tedd woowu du Serigne Modou Habib mi nga xamante ni mooy magi Serigne Mahmoudan Mbacke mi ñuy defaral bis bi kooku mooy Serigne Modou Habib waajuram soxna Sayna bu mbakke moom Serigne Murtada Mbacke mooy waajuram wu jigéen kooku mooy Serigne Modou Habib Mbacke. mooy ndaamal daaru ibnu Serigne. Maam Mor Mbacke Serigne Mamadan Mbacke di maamam Cerno Birahim Mbacke di maamam sëriñ Abdul Khoudos Mbacke di maamam soxna Maam Merem Mbacke di waajuram muy taaw Maam Mor Koso yàgg jiite màggal gi ñi ngi lay ñaanal Mbacke maam Cerno Birahim yàlla guddal soo fan te wéral la defal la tawféex defal la saxaratu daaray nekk nooray daaray ni ñu yàgg la fee fekk ci sa barkeb maam maam Thierno Birahim Mbacke ci sa barkeb maam Serigne Mamadan Mbacke ci sa barkeb maam Serigne Abdou Khoudos Mbacke ci sa barkeb waajur bu baax wa Serigne Soxna May. ci sa ci sa barkeb waajur bu baax wa maam Marème Mbacke ñu yàgg la fee fekk nga yàgg koo teewee ci barke sa waajur bu baax wa ñu ngi lay ñaanal yàlla guddal sa fan te wéral la defal la taw mbokku taalibe yi ñëpp a ngi ni toog dara manque fu Mbacke xéewal yëpp doy na. ñu ngi ñaan nga yàgg koo teewe ñu yàgg a topp ci sa ginnaaw. waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakatu ñu ngi siyaar mbokk yi fi daje yëpp ak sama mbokk Darou Mouhty yi nga xam ne ñoom laa fekk fii ñenn di samay rakk ñenn ñi di doom gannaaw bu leen nuyoo sant leen ak mbokk bi yëpp ba noppi nag ñëw fii tey ci barab bii nga xam ne yàlla dogal na kóllëre gu rëy amoon ci diggante ki kilifa yi. ba man mii may ku ñu jëmbate wëllëre ngir ngir kilifa gu tedd gi noonu fi sëñ Mahmoud sëñ Abdou Lahad tudde ma ko ngir diggante ak moom te ni meloon ak sëñ Abdou Lahad nag du moom dong ba mu tudde ma ko noonu la meloon ak doon sëñ Murtala noo te ak seq waraloon loolu soxna mayum sëñ Tuubaa la meloon ak moom ba mu fa sëñ Mor may mi joxoon ko ko ak suñu saa may yaakaar naa ku ci ne ci barab ji nga sampe kër taxawaay yu rafet yu mat sëkk yoo xam ne eh, jikko yi na Birahim rek la yoroon loolu moo waraloon nag ñëpp joxoon ko cër tegoon ko fu kawe ba indi fi seen i njaboot yi ngir bëgg sëñ bi li nekk ci moom mu comp ci defal ko defal ko defal defal leen ko ci seen njaboot moo tax nañu mboolem ñu jaar ci barab bii tey te kenn ku nekk ci kilifa nga ci barab bi nga ne waaye yàlla def na ci yow loo xam ne lii gannaaw bu yàlla boolee ci borom daru wala mu ci sëñ Tuubaa ci barab bii nga ko tàmbee loolu nu nattab li wuñ ko leer nañu Cheikh Abdou Lahad sax dafa waxante woon sëñ Mahmadan ni ko doom ju ma jur dana jaar fi yow nga nga defal ma li na ci yow nga defal ma ko ci sëñ Sidi miinu sunu mag ñëpp moo fi jëkk daje woon fekk alaaji maam Thierno ñoom ñi ak sëñ Bass Anta ñoom ñi tey ñoo fi bokk tase ci jataay bii ci ci ci barab bii yàlla def nag gis nga yàlla li muy def Abdou Samad mu sëñ Abdou Lahad fi la nekkoon sëñ Moussa mu sëñ Abdou Lahad mi fi la nekkoon ñun ñu fi la jaar man mii nag bi may ñëw an fii ànd naa fekk sëñ Abdou Lahad ci ci waxtu ndaw fàttewuma ko ba fi may waxee yow demaguma daara daa sax boobu waaye yàlla def nag man jamono ñi may ñëw boobu wér di gi duggoon na sëñ Mahmadan loolu mooy sababu sama ñàkk nekk ci barab bii ni kon mboolem li ma jàng maag samay rak ci barab bi lañ koy jàngee ngir ñu leeral rek loolu nag sëñ maam moor mi fi nekkoon matal lépp nag yàlla def sëñ Abdou Lahad daf daan woo sëñ maam moo di téye ci kër gi boppam gi lu war a mat yàlla def nag am woo ko fi téye ko ma ñëw di siyaare si waxtu marax mu yónnee nii dem leen ci néeg bi wool ma Mamor ñu dem woy sëñ Mamor bi sëñ Mamor dikkee mu toog ma toog ñaari baat yi rek la ca wax yéen ñaar ñii ba li war a dox seen diggante mi ngi ciy dox sëñ Mamor ne ko noonu de noonu umpantit ci dara te mu ngi jaxasoog man te di ma seet mu ne ko euh, sëñ bi ni ko lool rek laa bëggoon a wax yàlla def na it ma woon la fi mu ko tegoon Abdou Diouf ñëw na fi yoon woo da koo woowoon ko ñëwal. nit ñi nit ñëpp yi gisee moom kat noonu nga war a gisee moom ba kilifa yëpp teewee ku ci ne mu boole foog ndaw ñu ko ñu ko yóbbu ko ñu di ko def di ko def ba lépp jeex ba sëñ Mamour moom mu war a war caa des te ay waajuram ña nga ci biir kër googee ci wàllu Sëñ Tuuba ak wàllu Daaru Muxti mu woo Mamour ba mu ñëw Abdou Diouf toog mu ko kii nag ni ma lay booleeg moom mooy na nga xam ne man ak baayam nii loole nag la ñuy feddali yàlla dogal su sunu doom ji nag. ndaw la waaye yàqu ci dara ndax noo ko jur ci wàllu ndeyam jur ko ci wàllu baayam muy maam Thierno mii ñu xamit fi ko baayam jaarale woon ak yoon wi mu ko tegoon ak lépp lu mu ko war a wax ci leeral leeral na ko maam Thierno ñu xam na ko te moom itam ndaw la waaye nag eh, teg na tànkam fa mu ko war a teg ndax gisoon na li waajuram daan jëf ndax waajuram bi fi waajuram di jóge eh, sëñ Mahmadan ay atam agul fenn fi waaye ak matam ak jikkoom ju rafet ak teg tànkam ci saarat mustaqima fu mu àgg moo ko fàggale foofee nag sunu doom ji teg na fa tànkam te ñu ngi koy ñaanal yàlla yàlla may ko fan wu gudd te fekkal ko mépp ndog ba nisër yi nga xam ne sëñ alaaji eh, eh, sëñ Mamor nisëroon na ko ak ñoom ñu fi des di ay waajuram yëpp yàlla may ko mu taxaw ba yéene yëpp àgg ci dara ji Sëriñ Tuuba jërë ngi nuyu baax di siyaare jëmm ju tedd ju nu jàkkaar lool maam Thierno ibnu ibnu Serigne ibnu Serigne Mamor Mbacke Serigne Mamor Mbacke ibnu Serigne Mahmadan Koso ñoo ngi nuyu baax di siyaare di ñaan suñu borom mi nga na ma may sët yu baax na ma may sët dal waaye na ma may sët yoo xam ne si danañ mën a attan yoon yi waaye danañ mën a taxaw diine lislaam sët yooyu ku gis toogaay bii xam ne sët yooyu ci nga bokk waaye nag bu ñu xoolee pakk bi ak kan mooy borom pàkk bi ak kan moo gor pàkk bi xel yëpp lay dem Cheikh Ibra Fati bu ne Cheikh Ibra Fati mooy cerno bari diine bari ngor bari xam-xam te mun ta war borom daaru muxti ñemeb dogal xam la ko war cerno wutewul ak kun yónni la kersaaki teggin moo ko am te mat wala reneel naam maam cerno du xeeb du naw moo bari jom ñemete ñoŋ Cerno ku sell la dara mosul tax mu rët boo xoolee toogaay bi xam ne fit moo tax mu toog ak njàmbaar moo ko bàyyi ci àll bi dan jàmbaar ngi nii waaye it jàmbaar nga ñun yow la ñu àndal ñëw fii ñëw fi ci ndiggal taalibe bi amul lu dul dàkkuk sëriñam li sëriñam bëgg mu taxaw ci loolu pastas boobu nga doxe tey ba agsi fii xéewal li ñu fi indi jëruñ ñu koy lim teraanga moom xam na ko dox sa digganteem ak kan Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul waaye kan Cerno mi goroon pàkk bi ki toj kinkóol yi toj kolom toj janme gën a fay ñëloor toj koso gaynde yi nekkoon ci biim du bóor mu dàq lañu ñu daw borom daar muxti kon bu ñu toogee fii ñun wàcc nañu def nañ lu ñu war a def ab taalibe nag ab sëriñam dong la am bu noppee taxawu sëriñam matatul li mu doon kon nag dañuy ñaan ci dara daraje Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul mi nga xam ne mu ñu lul moom Mbàkke nga yàgg fi te wér ci doole sa maam ja noo ci doole sama maam ji Serigne Abdoul Khoudous mi nga xam ne si kenn dootu ko présenté ci àdduna Serigne Abdoul Khoudous mi nga xam ne si yaakaar naa ni bu ñu xoolee yoonu murit ak njabootu Cheikh Ibra Faty xam nañ mooy kan boo xoolee jenn doomam ji ñuy wax Serigne Abdourahmane Mbacké day doy sëkk exemple da ngay xam ne kii bàyyam amoon na taxawaay bu dugg Adama Adama kontaan nañ bu baax ñu ngi ñaanal ñëpp suñu borom defal leen tawfeex di ñaan suñu borom sax ma jàngal nee na eh, bind ci arab moom sëñ Mouhamadane moom ñuy tudd bind ci arab ak naan kaasu ndox la yemale ne en 1945 sëñ Moudou Moustapha dafay jógee ñu wax ko ko rek mu daal di jël bindukaay mu daal di jël bindukaay ak ak ak koy marsi yàlla keroog euh, sëñ Bassirou euh, Assuloo tari na fa marsiya ba ah kon nag kooku bu ñu ko dee taxawal bis defe naa ne Sénégal gépp lañ ko lañ ko taxaw bu ñu ko dee fàttaliku Sénégal yëpp war nañu ko fàttaliku ndaxte jëm la woon joo xam ne ji ku mën a jàngale la ku mën a yar la ku nangoo liggéey la tey dama ciy jox ay sample rek ci jikkoom dama laa wax ne maanaam dama wax léegi léegi may leen maanaam dama gis ñaar ñoo xam ne rek kenn lañ ci lislaam kenn lañ ci yoonu murit muy Cheikh Abdoul Ahad Mbacké ak Cheikh Abdou Khadim Mbacké ak fañ tegu fañ ko ko fa teg mu nekk ca mu nekk ca loolee nag ba yàlla dogal mu wujji boroomam en 1976 euh, mu fi jógee 76 nag ah, doomam ju baax ji nekk fi di Mamor Mbacké sëñ Mamor Mbacké moom koso nekk fi ak rakkam sëñ Njaga nekk fi sëñ Moustapha nekk fi ak seen i jigéen ak seen ak taaliba yu mag yi fi nekk yëpp ba tey jii ñu di ko wol mu tàmbalee ko wootal bis bi nag di woote bis bi ba tey ji yàlla def maanaam mu dëddunu moom sëñ Mamour Kosso fa mu taxaw tegoon tànkam bayit mag rakam ju baax ji ak doomam yu baax ji teg ko fa muy sëñ Maxtaar Mbakke ak sëñ Abdou Lahad Mbakke ak maam Thierno ak seen rak ak rakam taaliba yi kenn ku nekk fu waay nekk euh, jóge nga fa ñëw ngir bis bi kon nag bu ñu fi teewee day ñaan ci yàlla rek lu fi ñaan yàlla na ko yàlla nangu yàlla na ko yàlla nangu te yàlla na tax ci barkeem ba sëñ Mahamadan nag wax ci moom lu bari la ndax ndax jikkoom ak ku meloom ak jang jànglekatam ndax man ki ma yar mooy magam mooy Cheikh Abdou Khoudous Cheikh Abdou Khoudous mooy mag Cheikh Abdou Khoudous Cheikh Mahamadan moo topp ci moom ndax soxna Mariam Balla Sil mooy seen wëj ak maam Thierno Birahim maam Thierno Birahim soxna Mariam Balla Sil ñu taalu sëñ Modou Habib teg ci soxna si Thierno ak soxna Aminta ak ak ak Cheikh Abdou Khoudous ak Cheikh Mahamadan noonu lañ toppantee kon lu li ma ci xam bari na waaye nag jataay bi mayewu ko waaye nag kon noo ñaan ci yàlla yéen ñi fi teew ak seen yéen ji ngeen am ba ñëw ah bu déwee ne yàlla na ngeen yokk ba yëg ko ci barke borom bis bi xawal sëñ Mahamadan Thiam kon xanaa wax sa bisub turandoo dina yombalal kon loo ñuy fàttali ci jëmm ju tedd jooju muy sëriñ Mahamadan sa turandoo ñoo leen di asalaamaaleykum di leen ziare ci ñëw bii ngeen xam ne moom ngeen fi ñëw yàlla na leen yàlla ak sëriñ tuubaa dafa li xéewal ndax ñëw ngeen sàkku si ci ki nga xam ne muy ku tedd ki kii doon wax mooy Modou Mbeng di bëkk néegu Cheikh Abdou Khoudous Mbacké li mu wax ci Serigne Abdou Khoudous lu yàgg la ci moom ndax euh, ba mu nekk ak Serigne Abdou Khoudous yàgg na mu jóge fii dem Europe yàlla dogal Serigne Abdou Khoudous jóge fi noppalu li mu wax ci Serigne suñ sëriñ muy Serigne Mamor Koso mooy nit koo xam ne dañ koy ñaanal rek. yàlla ak Serigne Touba yokk ay leeram muy nit ki nga xam ne ñun ñëpp fi leen defaroo fii ci Daaru Koso di wax ni rek bis bi ku ñëw Koso xam ne day dëkk boo xam ne ku fi teg sa tànk rek araamal na sawara fii nii ku fi teg sa tànk rek pour ñëw pour sàkku si araamal na sawara ni koy defee boobu ba léegi rek ñoo ngi fii ci Daarul Koso ci màggaluk Serigne Mahmoudane di wéy di yàggale liggéey bi comme ni ñu koy defee ci daayira yëpp ñoo ngi fii ci kër Serigne Maam Thierno Mbacke mi nga xamante ni mooy xalifab Serigne Maam Mor ñu taxaw ak bi nga xamante ni mooy xidmatul xadim fas yéenee taxaw liggéey bi ci biir kër gi ñu ciy feggoog Serigne Cheikhouna Diop mu dina jotale ay kàddu ci turu xidmatul xadim sëñ Maam Mor xidmatul xadim ban yëngu lay am ci biir kër sëriñ Maam Thierno ci liggéeyu màggalub Daaru Koso ak mbokki taalibe yi nga xamante ni ñoo aju ci kër Serigne Maam Mor di ko dégg ku ci bëgg a jokk nan lay def ak nit lay mën a def ba jàpp ci liggéey bu am solo bi nga xamante ni Xidmatul Xadim mi ngi koy amal ci kër Serigne Maam Thion sëñ Maam Mor bisimilah. ok asalaamaaleykum wa wa barakaatu. mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu di leen ziyaare bu baax eh, di leen jaajëfal bu baax waa Tawfekh Production ñu ngi leen di ñaanal taxawaay bu rëy bi ngeen taxawee ci màggal gi sunu borom fay leen ci. ba ngeen daje ci ngërëma Serigne Touba ñu ngi bég lool di am contentement bu baax bañ leen gisee ci biir kër gi waaye di rafetlu seen taxawaay bu baax euh, li ngeen ñu laaj nag dinañ ci sawar ndax daayira xidmatul xaddim moom daayira la boo xam ne ñoo amuk sunu bëgg am sunu euh, yëngatu am sunu positif rek tax ñu gis ne war nañ koo taxawal bañ ko taxawalee itam wax dëgg ñu waxtaan ci sëñ bi mu mu gën ñu cee joxaan digal waaye li waral sabab li sabab ñu taxawal ko mooy gis nañ ne comme que ñun ñoo ñëw ci sëñ bi ne ko jox nañ la sunu bopp àddina ak àllaaxira euh, te ñun la am kër gu nekk am na daayira ñun ñu ne euh, kër la ko war a taxaw la ko war a ñoŋal la ko war a may sécurité mooy daayira ba kër sëriñ la ko war a taxaw la ko war a ñoŋal la ko war a may sécurité mooy daayira ñu daal ne nañ dajaloo fa yéene ànd ak sunu sëriñ bi nga xam ne moom lañ yaakaar fii ak ëllëg mi nga xam ne moo dox suñu digg ak sëñ Mamor dox suñu digg ak sëñ Mahmoud euh, euh, euh, sëñ Mahmoudan dox suñu diggan borom Daaru Muxti dox suñu digg ak sëriñ Touba comme que ñun moom lañ yaakaar ñu ne nag nañ taxaw ngir àndandoo liggéeyal ko bañ àndandoo bañ taxawee nag ne képp dañuy liggéeyal sëriñ bi danoo mujj sas suñu bopp ndax ab taalibe moom. dafa war a sas boppam njëkk sëriñ bi di ko sas ñu daal di sas suñu bopp ne nag duñ def daayira rek ngir xidma waaye dañuy def daayira di xidma boole ko ëddiyee joo xam ne dañ koy dajale yóbbu ko ci sëñ bi loolu nag daayira bi sax màggalu Daaru Koso da koy da maanaam day feeñal taxawaayam day feeñal taxawaayam lool ci liggéey bi ndax gis ngeen màggal gi sëriñ bi tabaarakallaahu ni gan yi nu muy xate Ah, ni gan yi duggee sëriñ si ku nekk jóge fu nekk mbokkam yi ak am di jàmmam mi ku nekk di ñëw su ko defee daayira bi bu amul sécurité bu taxawaay rek maanaam liggéey bi mën naa sooxe looloo waral maanaam ñu am ci taxawaay bii nga xam ne maanaam tabaarakallaahu sang màggal maanaam sang màggal dañuy taxaw gani sëriñ bi di taxaw yu mbokki taalibe yi di dalal mbokki taalibe yi ci màggal gi léegi nag Euh, ban taxawaay la am ci kër bi mooy loolu xidma gi rek ndax xidmatul xadim dañuy liggéey sëñ Tuubaa taxawaay biñ ci am mooy liggéey gi kon liggéey bépp liggéey bu aju ci kër bi ñun ñoo koy liggéey ñun daayira xidmatul xadim fii ci kër sëñ maam Thierno ndax suñ demee ci barab yi ñun barab bi lañ mën a taxaw keneen ta xaar ñu ci barab bu sëñ Maxtaar keneen xaar ñu fee keneen xaar ñu fee ñun ñëpp benn lañ waaye ñun ci waa kër xidmatul xadim waaye daayira xidmatul xadim bu maam Thierno koso kër sëñ maam Thierno gii lañ nekk li ci liggéeyal sëriñ bi waaw nga xamante si ni maanaam dañ ciy fas lëggeel sëñ Touba ndax moom moo dox suñu digg ak sëñ nga xam ne loolu daal moo war a lëggéey bi su ko dee ki ci bëgg a bokk nag moom day ñëw ci jëwriñ ji ji mooy euh, bi dee Touba am nañ fa bànqaas fii ci Kos am nañ ci bànqaas jëwriñu Touba Serigne Nourou Tall lañ koy wax mi ngi nii feggoog man bu fekkee ne jëwriñu Koso ji euh, Serigne Diagne moo fi nekkoon waaye ku bëgg a kii mën naa ñëw ci sëñ Mor Top waaye sëñ Diagne mooy moom it jëwriñ la ca Ndakaaru ak fépp foo xamante si nii rek maanaam ma nga fa dañu fay wóotu même ñi nekk Touba sax sëñ Diagne pëstéefam tax na mu mën leen a wóotu ngir day woon nit ñi di leen taxaw di def lépp kon képp ku bëgg a ci daari bu jaaree sëñ daan dana ci bokk bu jaaree sëñ Nuur dana ci bokk bu jaaree ci ñun itam des na ko tegal ci yoon woo xam ne dana fa bu fa yeggee dana ca bokk niñ ci bokkee nag mooy da ngay ñëw ngir ñu ànd liggéeyal sëriñ nangam ngay joxe muy 500 francs at mi 6000 ñu ànd lëggéeyal ko sëñ bi dajale suñu addiye bi su màggal ko suñ ñëw jébbal ko sëñ bi ñun nag amuñu lu lu du sëriñ bi moo tax defoon nañ ci moom benn woy bu gàtt boo xam ne rek ci moom la ñuy la ñuy nga xam ne ñun sëñ bi moo ñu ñor te ci moom rek lañ tënku te moo dox suñ digg ak Sëñ Tuubaa danoo waxoon ci woy wi ne salaamullahi aleykum ab nuyoo la bu yiw moo tax ñu jébbal ko sëñ maam Thierno mii ñu fi am salaamullahi aleykum am nu yoo bu yiw moo tax ñu jébbal ko sëñ maam Thierno mii ñu fi am xidmatul xadim yaay seen jëwriñ te yow lanu gëm moo tax ñu ñëw ci sa bis bi ngir moo tax ñu ñëw ci sa bis bi ngir sa ji nga am bisum ngëneel la bis bi bis bu rëy la ci nun moo tax ñu ñëw ànd ak mbooloo mu rëy mi nu am indaale nañ hëddiya di sàkku rekk sa mbig te ya te yaay sunub sang maam te eh, yaay sunub sang doyloo nañ la yow la nu gëm te yaay sunub sang doyloo nañ la yow la nu gëm ndax yaa waxoon ne sëriñ Mamoor sa jëw riña yow te moom sëriñ Mahmoudan moo nekk ab sëriñam ku baax ku sell ku am xam-xam la woon te boroom daaroo di aw way juróom moo nekk it sëriñam yàlla na jëwrin du ñàkk jëwrin du ñàkk suñ digg ak Serigne Touba moo tax ñu doy loola jël suñ lépp ñëw ne la am moo tax ñu doy loola jël suñ lépp ñëw ne am yàlla nañ fi yàgg te dollee làq seeni ngërëm yàlla nañ fi yàgg nu nit bay làq seeni ngërëm te xawlu nan te di ñaan Sidil Muxtaar mi fi toog jotaayub sëñ Mahmoudan buur bi dolli ko ndam mu am baydu xaraw moo xam ne nag dañ koy jagleel mbokki taalibe bi yëpp yoo xam ne toll nañ ci étape boobu ma wax ne taxawlu naa te di ñaan suñ soxna nekk ku baax te yàlla na ñëw léegi barkeb sëñ bu mag bi nu gëm loolu nag li tax mu bind ko mooy tabaarakallaa danoo bëgg mbooloom mi gën a yokk soxna yeeg ñëpp gën a yokk ndax gis nañ ne ku ñuy denc ci ban sosee ba léegi ñu ngi ñëw ak seen soxna te loolu taaral liggéey bi di ko gën a rafetal ñoo ngi ñaanal sëñ bi suñu borom yàggal ka fi may ko wér woyofal yan wi ci kanaat maam ci kawam ba lépp lu mu bëgg a liggéeyal sëriñ maam moor maanaam euh, maanaam maam mu am ci mu am ci maam lu kawe njortam ci barkeb sëñ Tuubaa ndax sëñ maam moor lay liggéeyal mooy jëriñam euh, waaye nag sëñ maam moor ki ko fi toogal maam ki fi toqali fi sëñ Mahmoudan moom lay jàppale ci liggéey bi sëñ sëñ sëñ sëñ sëñ Maxtaar moom it ñu ngi koy ñaanal suñu borom yàggal ka fi ñoo ngi jéggalu lu ci jub ñu sant ko yàlla lu ci dëng ñu jéggalu ko ngeen xam ne daaw ah, doomu aadama boo xam ne daa tële wax rek ñu jox ko micro bi muy wax moo fi taxaw wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. xidmatul xadim moom ku ko suñu borom defal muy tawfeex rek kon sas nañ kon yoon waa ngi noonu jërëjëf yàlla suñu borom defal dégg ak top te ngërëmu sëñ bi ci dàggoot suñu borom defal na ko ci ndax bis bi mën na ko te mate na ko nañ rek te gëm ko yàlla nag suñu borom yàggal lool ñu yàgg fee fekk ay ati jërëjëf suñ télévision bi ñu ñaanal ko production tawfeex fu mu bëgg a yegg rek mu yegg fa ci tawfeexi Seexul Xadim wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. asalaamaaleykum mbokk yi comme ñu ngi ci bis bu tedd bi ñi ngi taxaw ak Serigne Mahmoudan Mbacke moom Baye Cheikh yi Mbacke di ko ñaanal suñu borom may ko fanu gudd lool wànd ak ak wér. ñu taxaw ci bisu turandoom bu tedd bi mu defal ñu ci ay soñé ci bokki taalibe yi koy fekkee ak jëmm ju tedd nga xamante ni waajuroom amoon na ay kóllëre bu baax a baax ak Serigne Mahmoudan ba duppee ko ni niñ ko sëñ Mahmoudan suñu Abdoulaye waxee léegi rek kon Serigne Mahmoudan ginnaaw bu la bokki taalibe yi nuyoo sant la gërëm la. ñoo ngi laaj sa bisu turando bi rek nga defal ñu ci ay soññe yu mbokk taalibe yi mën a yóbbaale rek mbàkki bala bisimilah. ok euh, asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu euh, mbokki jullit yi euh, mbokki taalibe yi maa ngi leen di nuyu di leen ziyaara bu baax ci bis bi nga xam ne bis la bu bu am solo di bisub Serigne Mahmoudane moom borom daarul Muxti yàlla dogal nag moo bokk ci. ñi am tawféex euh, sunu waajur duppee nu ko muy muy ak cant ci man euh, gu wér a wér euh, yàlla dogal itam xaj na bi muy nekk ci àdduna yàlla dogalul ma fekk ko fi sama wayjur yëkkati ma jox ma sëriñ Mamor di ko ñaanal yàlla moom itam seen borom yokk ay leeram te taas ñu ci barkeem ndax damay wax ni Euh, daarul koso moom dëkk la boo xam ni euh, bu fekkee ni fi nga dëkk walla nga bokk ci daaru musi ak foo mën a bokk euh, boo boo déggee turu dëkk yi sunu borom dimbale la war ngaa mën a ñëw ba agsi ci dëkk bi itam barkeelu fi ndax doomi sëñ Tuubaa yi mën naa ni ñi ëpp ja ñëw nañ fii seeni doom itam ñi ci ëpp fii lañ jànge doomi borom daaru yi itam ci ñi nga xam ne ñoo gën a féete ndaw ñi ci ëpp fii lañ jaar kon fii université la boo xam ni euh, mën naa ni senegal réew mi euh, ñëpp fi la ñu ñu ci ëpp ñi coow ci boroomi xam-xam ci senegal bari na koo xam ne nii fi nga jaar wala boo fi jaarutit kala jàngal fii la jaar loolu muy muy muy muy tawféex goo xam ni euh, sunu borom jagleel na ko borom Daaru Muxti jagleel ko sëñ Mahmadan ndax borom Daaru Muxti dafa amoon yéene. ci dëkk bii euh, man euh, sama wayjur euh, bii sëñ bi sañcee Daaru Koso ci jamono boobu ci gane àdduna bi muy bi fii sëñ bëggoon lool koso gii fonk ko xamoon ni itam ngëneel yépp mi ngi fii ba tax na mu mu mu doon sàkku di di wut ku ku fi nekk ku mu fi indi rek àll bi xawoon a jafe ndax lu baax du yomb ah, su sunu borom dimbale sëriñ Mahmadan ba bi ko sëñ bi ko bi ko bi ko bi ko borom daaru joxe ndigal li mu daal di mu mu ñëw fi nag toog waaw ah, ndax xam na ni ndigal sëñ Mahmadan moom du li ko borom daaru li ko borom daaru Muxti jur waaye ndigal moom daf ko mas a fonk nekk na fi ba jóge fi fépp fu ndigal jóge eh, ci moo xam ci ci borom daaru Muxti la jóge wala ci ñi fi nekkal sëñ Touba. musa yamale ndigal ak dara bi mu demee ba gisatul borom daaru muxti itam képp ku fi nekkal borom daaru muxti wala ngay eh, kilifaam eh, ndigal loo ko jox balaa balaa toog wala balaa defati dara ndigal loolu daf koo jëfe ba noppi loolu moom nit ñëpp xam nañ loolu sëñ Mahmadan di ñaan yàlla yàlla taas ñu ci barkeem te itam lépp loo xam ne bàyyi na ko fi si ak njaboot sunu borom teg ci loxoom ndax eh, loolu itam dinaa fi dinaa ci taxaw tuuti ci doomam ji di sëñ Mamor ndax jamono bi fi sëñ Mahmadan di jóge xañ na booba ay atam am na foo xam ne ni fa la toll waaye ndimbal gum am ak jom jomi boppam tax na eh, lam waroon a def lépp ci digganteem ak sëñ Mahmadan war koo def digganteem ak dëkk bii sëñ Mamor taxaw na ci ba lépp waaw adduna nag moo baaxoo noonu ndax kenn du fi nekk di dund di dem waaye li wér te mooy sëñ ma sëñ Mamor Ah, ah, doomi sëñ Mahmadana eh, am na am na am na jom am na ngor am na fit dégg na ndigalul waajuram ba toog ci dëkk bii ba lépp fekk ko fi lépp loo xam ne nii sëñ Mahmadana yéene won na ko ci dëkk bii sëñ Mamor toog na fi ba loola sotti mu door dem dem àjjana kon mën naa waat walla moo wax ni am na ngërëmal maam Thierno am nga na ngërëmal sëñ Mahmadana eh, rakkam yi itam yëpp noonu noonu lañ mel ba kii nga xam ne moom la fi yàlla teg muy sëñ sëñ Moxtaar nga xam ne ñun ñëpp ci moom lañ jaar moo ñu toqi moo ñu jàngal loolu dong lañ xam ci moom maandu jàppu njàmburam nangoo jaamu yàlla lépp luy luy luy ay caaxaan sëñ sëñ sëñ Moxtaar kenn du ko ca dégg du amu ca kàddu amu ci ñëwaat bu dee ak jub lu baax nag boo ko ca woowee boo nekkoon ca. fu mu mën a doon sax mu fekk la fa ndax lu baax rek moo ko moo ko ñor te loolu ñëpp mën mën nañ ko koo séeréel kon nag ñu ngi koy ñaanal bu baax sunu boroom guddal aw fanam ba la magam yi baax yéene woon mu mottali ko def ko ba def lu kawe jortam doom mi sëñ maam Mor jii sëñ sëñ maam Thierno nga xam ni man moom <clears throat> ñoo bokkoon nekk fii sëñ maam boole nu yóbbu ñu jàngi ñu boole ñu indi ñu nekk lépp lu ñuy defandoo ñun ñi ñoo maa ngi moom ñoo ko ànd di ko def moom itam ñu maa ngi koy ñaanal ci barke Sëñ Touba ak bisu waajuram bu tedd wi sunu borom dimbale ko ba yéene ji nga xam ne sëñ Mamoor amoon na ko moom itam mu àggale ko mu bañ a am menn ndokk barki Seexul Xadiim taalibe yi itam képp koo xam ne nii teew nga fi mën naa ni am nga tawféex ndax bis la boo xam ni eh, jar na teew képp koo xam ne nii suñu borom dimbale na la ba nga teew fii itam mën naa ni am nga tawféex ju rëy rëy rëy waaw ndax loolee sëñ Abdou Khadir doon wax ni daarul koso peg peeg la boo xam ne nii seytaane xamu ko loolu mooy dëgg lépp luñ fi mës a liggéey ci ja sëñ Mahmadan ci jamono borom daaru sëñ Mahmadan lépp luñ fi mës a liggéey itam ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ndigalu sëñ ci ci dundub sëñ Touba la jëm fii bari bañ na ko ba am na daaj boo xam ne nii mag ñi dañ ko créé woon sax bu ñuy góob dugub ji sax am na daaj xasida boo xam ne nii moom lañ ko jagleeloon ngir di ko góobi dugub ji yóbbul sëñ Touba kon nga xam ne fii dëkk la boo xam ne nii ku ko xamutoon war nga koo xam képp ku fi ñëwutoon war nga war nga fee ñëw képp ku sunu borom dimbale itam ba nga bokk daarul koso wala nga am fi kër wala nga nekk fi wala sa wasila nekk fi loolu tawféex bu rëye rëy rëy ñu ngi ñaan ci barki sañ tubaa ñu màggal ko ay at yu bëree baree bëri barke Seexul Xadiim sunu borom yàggal fi lool yàggal fi itam sëñ Basiiru Anta Ñaŋ yàggal fi sëñ Maxtaar ak mbooleem jullit ñi yàggal fi taalibe yi te jox leen ay xéewal ak suutura defal leen tam xéewal yu ñu mën a liggéey sëñ bi wasalaamaaleykum wa rahmatullah amin jërëjëf kon kin jàkkaloon mooy sëriñ Mahmoudan moom Baye Cheikh Khady yal na suñu borom yokk fanam te may ko wér te ñu teewee ko at yu bëree bëri barki Cheikhul Khadim rek ñu ngi fii ci kër Serigne Ahmadou Mbacke di doomi Serigne Mamor Mbacke mi nga xamante ni moo njëkk a nekk xalifab Serigne Mahamadan mbokki taalibe yi di wër di siyaare ci bis bu tedd bii di màggaluk Serigne Mahamadan kooku ñu jàkkaarloo mooy Serigne Ahmadou Mbacke moom Serigne Mamor Bousso. Ah, baax na kon mbokk yi kooku ñuy jàkkaar lool mooy Serigne Mahmoudan Mbacke moom Serigne Mamor Koso moom it bokki taalibe yaa ngi noonu di wër di siyaare kooku mooy Serigne Mahmoudan Mbacke mi mu tuddee borom bis bu tedd bi mu